classé sans suite dossier classé sans suite parce que dañ leen di toppee gisuñu lu ñu leen <laughs> li waral tax ñu mën a ñu mën leen a téye alors est-ce que xel war na mën a dal kon ci casting boobu ñu def parce que c'est un procureur la République bu ñëpp xam am na fi ay passé yu ñu xam bu bu bu bu ñëpp plébiscité un ministre de la justice bu ñu xam également ci euh, ak bañam ak def liggéey bi ni mu waree est-ce que mbiri bu bu bu bu continuer nii xel war na mën a dal ci sunu justice ni mu ni mu ni mu tëddee. waaye effectivement xam nga boo xoolee boo defee benn petite comparaison. Mhm. Euh, ak euh, entre régime bu bees bi. ñu mhm. commencé ak euh, régime Macky Sall président Macky Sall. Euh, d'habitude bu ñu oowaan opposant buy dem heure bi fekk na lacrymogène on a au moins deux morts wala trois morts te finalement euh, euh, heureusement yii nii daanakaan amul mm-hmm. n'est-ce pas te man dama gis ni sa le ça fait partie du cours normal des choses ñu mm-hmm. woo Bougane woo beneen woo Cheikh Yirim woo keneen ñu ñëw ñu ñu ñu entendre leen ñu gis neen gisuñu lenn loo xam dañ leen koy toppe comme diffamation wala injure wala yooyu loolu ça fait partie du cours normal des choses de la justice mm-hmm. mais man au delà de loolu dama gis benn genre euh, euh, maanaam li li pour man pour man bu ma mayee ma ma wax bëgguma ko woon wax na mais dama gis ni peut être mm. c' est une stratégie bu bu opposition bi teg et mm. pourtant c' de bonne guerre da leen koy nangul man je pense que ni l' opposition cherche à avoir le maximum de détenus politiques te loolu du arranger régime bi en place waaw parce que boo xoolee ñi ñi boo xoolee temps yi da nga doon da doon gis ni mm-hmm. dafa mel ni ñoom ils étaient prêts à ce ñu am quelques arrestations ak quelques emprisonnements mhm. bien avant les élections législatives même ñi bokk les leaders yi bokk ci liss yi man gis naa ni technique boobu la ñu tegoon mais heureusement peut-être état dafa mel ni peut-être jéggi na ko mhm. n'est-ce pas mhm. donc te loolu arrangé wu leen arrangé wu leen parce que dañuy dem ci ci ay ci ay ci ay ci ay échéances législatives donc li ñu ciy wax rek mooy nañu moytu nañu moytu yenn yenn yenn yenn dérive verbale yoo xam ni day dem bay versé wu ci injure wala mu parce que parce que parce que parce que loi dafa am nu mu tuddee injure fa am xam nga ñun ñun a wolof sa nangamtaan tudd sa waajur wala kii ñun moom la ñuy wax injure mais loolu même même même mais loolu tubaab tuddewu ko injure pénale bi tuddewu ko injure il suffit ma ma ma dal ci sa kaw comme ni ko euh, doyen waxee léegi mm-hmm. euh, xas la wala wala wala comme ne la da ngay fen wala loolu mën na ko tuddee injure mm-hmm. n'est-ce pas quant à diffamation nag ak yooyu yooyu dafay fekk daanakaan ñu porte la plainte te gis naa ñu ni le le kii de le le un avocat de mu ne moom moom portewul plainte n'est-ce pas donc xam nga loolu duggul ci daal le cadre de l'ordre public mais le le procureur en dafay veiller mhm. ci ci ci ordre public beneen bi ma bëggoon nga may mën rebondir rek mooy bii gars yi doon wax léegi ci affaire FMI ak Banque mondiale. Mhm. Euh, ak euh, les allégations du premier <laughs> ministre. oui. Oh, parce que xam nga xam nga man d'abord. parce que lépp fa la tàmbalee lépp fa la tàmbalee effectivement parce que man dama ko apprécier. parce ah. que lu tax ma apprécier génn premier ministre bi. Mhm. dama gis ni auparavant loolu daaw ñu ko am. te actuellement fexe na ba génn parce que dañ doon gis un premier ministre qui est toujours derrière les voitures noires qui est toujours à la RTS dans les avions et cetera et cetera au conseil des ministres daaw ñu ko gis muy étaler toog def conférence avec les chaines euh, de télévision ak ñëpp wax li nga xam ni moom mooy état des lieux bi nga xam ni def na ko hmm. au moins le droit à l'information et le droit à l'information également c'est un droit universel hmm. n'est-ce pas muy benn beneen bi parce que man bu amoon na bu bu ma keroog dafa xaw a taw sax ma xaw a tardé mais amoon na lu ma lu ma lu ma ne woon ba mu fa teewoon dinaa ko laaj. Mhm. n'est-ce pas. Mhm. Euh, parce que il a il a euh, soulevé na question wu euh, lapidation foncière donte na ñëwu ci lu yaatu. Mhm. buggoon naa xam est-ce que. dafa prendre en compte rek ci état des lieux yu ñu def seen rapport dañu prendre en compte rek le foncier le bâtiment le foncier à usage d'habitation wala le patrimoine bâti de l'état ou bien dañu a prendre en compte prendre nga xam ne mooy le foncier agricole yi nga xam ni les multinationales yi fi nekk ñoom aussi dañ ko accaparer te loolu dafay bloquer li nga xam ne mooy souveraineté alimentaire loolu aussi war nañ ci def ñoom état des ma nag bàyyi nañ ko ko bàyyi nañ ko xel wala beneen bi mooy li nga xam ni euh, xam nga président Macky Sall régime lu tax affaire bi am solo euh, li mu yàq ci finance publique dafa bari. Mhm. gis nga wax nañu deux mille cinq cent milliards yu ñu gisul. mille huit cent milliards six cent milliards yu ñu dépensé euh, dépense rapide la xaw ma nan la ñu ko tuddee. Mhm. n'est-ce pas gis nga gis nga yooyu xam nga la moo ko indi. xam nga la euh, dépense publique dafa am cursus normal bu muy jaar mooy trésor trésor mooy cursus normal bi muy circuit normal bi muy jaar. Mhm. mais président Macky Sall bi mu ñëwee. dafa créé lu naan DODT mhm. la direction des ordonnancements et des dépenses publiques muy hors circuit hors circuit la créé defal ko direction de telle sorte que dépenses publiques yooyu jógee foofu dafa koy loger ci dans les comptes dans les dans les dans les banques commerciales banques yi ci dëkk bi de tell sorte ko boo amee sa chèque yaa ngi dégg da ngay mën na dem di tibb mhm. te bu boobaa day day jégg trésor du ko mën a contrôler mhm. xam nga li ma la wax looloo taxoon nga dégg ci rapport yi ñu naan la am na ku dem. Euh, euh, une fois dans la jour deux fois dans la journée wala deux trois fois dans la semaine muy retirer deux cent millions trois cent millions quatre cent millions. loolu hors circuit boobu moom moo ko waral. looloo tax muy réer. mais ñoom li li li ñu waroon gën a def parce que loolu man je pense que dañu waroon sax def ko sous forme de panel. teg benn comptable public parce que loolu comptable public moo ko gën a mën a leeral. Mhm. ñoom ils sont pas spécialistes en la matière comptable public ñëw ñëw toog génne chiffres yi benn par benn. Mhm. te gis nga li ñu wax ci FMI ak banque man gëwuma les institutions de Bretton Woods. ah eh, ñoom nag. non gëwuma leen parce que xam nga lu tax. sunu moom yi ñoo ànd nag. non non xam nga il faut nga dem ci seen histoire. xam nga bi ñu demee lors de la seconde guerre mondiale. Mhm. après ñoom ñu ngi leen créé vers les années euh, vers les années. 44. Euh, yaa ngi dégg 44 45. Mm-hmm. te ñoom te ñoom euh, bi ñu bi ñu bi ñu leen bi ñu créé. Mm-hmm. d' abord ñi ngi base ñi ngi ñi ngi ñi ngi fondé wu ci ci ci la ci ci ci comment dirais ci ci. Euh, ci monnaie ci monnaie monnaie américaine yi ak ak monnaie kii bi nu mu tuddati l'autre là le pays Angleterre. Mm-hmm. livre sterling bi ak euh, li nga xam ne moom mooy dollar américain te boobu ñaari pays yooyu rek la ñu doxal le droit de seigneuriage. Mm-hmm. maanaam ñoom rek ñoo mënoon battre la monnaie international mm-hmm. de telle sorte que or bi or bi mën nañ ko convertir en livre sterling wala dollar. dollar bi aussi vice versa. bu ba bi ñu demee ci euh, vers les années trente. bi nga xamee ni crise années trente yi ñëw na. boo amee benn billet dollar américain wala livre sterling mën nga ko mën nga ko mën nga mën nañ la ko rembourser en or bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee franc français wala bu wala wala wala wala franc allemand bu boobaa doo ko mën hmm. te gis nga les institutions de Bretton Woods yaa ngi dégg waaw ñoom hmm. seen rôle principal seen mission principale hmm. entre guillemets les l'agenda caché des institutions de Bretton Woods mooy endetter davantage les pays africains looloo tax président Diomaye keroog il a eu l'intelligence de ne pas répondre favorablement à l'appel à à l'appel à l'emprunt. offre boobu ñu ko doon donte ne jël na quatre cent cinquante milliards euro bon. mais réew yi amul dette amul. Euh, non non dëgg la réew yi amul dette amul. États-Unis par exemple. non ñoom ñëpp am nañu dette. waaw mais euh, mm. ñoom ñëpp am nañu dette. ñoom ñëpp am nañu mais toujours dañuy bëgg toujours enforcer parce que réew mu mel ni ñoom lu ñu waroon def. nga xam ne duñ ko nga ko waroon demander. <laughs> ko waroon demander. très mais par contre état du Sénégal def na ko ba yónnee leen ay chiffres man nag li ñuy wax ci presse bi naan. Hmm. dañu dañu FMI wala Banque mondiale dañu contredire hmm. euh, les affirmations du rapport. Hmm. man franchement gisuma ko ci ci ci ci ci ci. plateforme FMI ak Banque mondiale. Hmm. xaw ma c'est une déclaration politique xaw ma. Hmm. mais FMI ak Banque mondiale les institutions de Bretton Woods. Hmm. ñooñu vraiment peut-être boo leen songee nag am nañu doole. pour xeex ak yow. très bien alors Abdou. Euh, Mbal. ñu ngi il ñu ngi ñëw ci loolu non di nga ñëw di nga ñëw Boubacar. alors Abdou euh, li andi je l'ai rappelé la situation catastrophique euh, du de l'économie sénégalaise ngay ngay président de de parti nga ci mën a am. également jàngat aujourd'hui sunu économie bi ni mu mel ak euh, réew mi nu mu nu mu naqare ñu bëri sax ñu ngi naan FMI soxlawuñu woon FMI pour xam économie Sénégal dafa ndërmeelam déet parce que poos yi fëkk na jamono ji mais aujourd'hui li le premier ministre déclaré yëpp mooy Euh, réew mi économiquement parlant dafa ndërmeelu te jiiñ ci euh, mooy dignitaire ancien régime euh, yi fi yi maanaam yi fi nekkoon alors mbiri nag c'est partagé interprétation yu bëri na ñii naan chiffres yi mu joxe ay la yoween war war nañ ko mën a xoolaat ñii naan waroon na xaar ba évidemment Cour des comptes certifié ko ñu mën ci xam lan moo ciy dëgg ak lu ci dul dëgg alors cette situation